dootul métti dootul métti jabar ji na ñëw baax mbokk euh, internet yi ñuy seetaan à travers le Dakarois 221 rawatina émission bii leen nga xam ne mooy li ci jaba li ci jaba nag tey ñu ngi marché Tilène ndax na jaba mooy marché bi ñu bëgg a xool li ne ci biir marché Tilène bi dañuy dugg rek mak sama caméraman bu ñaawul bi ah sama doom ji nga xam ne taarkaala lu mu filmé wul baaxul lu mu monté wul baaxul lu mu laalul baaxul mu topp ma rek. na ah, nañu ñaan yàlla sant yàlla ak fekkee rek xam nga moom boo fekkee rek moom doo jàmbat dara. mais lan moo la métti bi. bari na su maa ngi jaay taw ma xaar li ma métti sama dopp ba ko laaj. waaye daa mel ni de. bu ma laaj li ma métti. barke Serigne baa ni nga ko waxee xamee woo ko man su ma xëyoon lu may ma juróomi junni du ma tee xëy si marché ndax day saa bëgg-bëgg xam nga boo taal boo xamul may ma doo ko mas a xam marché bi daal. ñàkk nañu xaalis dañuy liggéey duñu am dara. man lépp lay jaay lépp luy neexal di baaxal rek dama koy jaay. voilà produit jigéen yi ngay jaay yan ñoo ci gën a jar. non yëpp ay jar yëpp yëpp am na dëkk bi amul xaalis mais yëpp am na fa yu ba bitig bi nu mu tudd. fi mooy jidda xeewal. jidda xeewal kon lépp lu lu jugee. roog laxaat cuuraay docteur Jeeg mooy nii maa ngi nii. waaw kon baadu jeeg yaa leen fa jeeg yi te marché bi ñi jaay tuuti waroon nañu am spécialement foo ne fa la ñuy ñëw teg kenn leen déranger mais gis nañu bu oto yi di ñëw da ngeen yëkkati seen bagage pour oto yi a a war naa mën a jeex moom sonn nañ trop wax dëgg yàlla ndax bu oto yi ñëwee dañuy am problème il faut que ñu laale bagage ba oto yi jàll la ci marché bi non marché moom moom li ma met bari na trop ndax place yi mairie yi dañuy sonal affaire yooyu tout ça mooy loolu noonu suñ tegee war liggéey gars yi dañuy diñu atañakkal li ñu suñ leen fekkee ngeen lal dañuy ñëw ne leen ngeen puus waaw ndax fan yi maa ngi bëggoon dem Dubaay sax mooy si gars yi mooy eh, loolu non benn rek nga am ay million ah. bu ñëwee raxas boo rosu ba set ah. waaw kon yow <laughs> waa Dubaay am nga code dimbale ma rek yàlla nga teg ma si code marché bi ah. waaw neex na am na ambiance gis la sànq yaa ngi ambiance gars yi di ree ngay def la waaw neex na am na ambiance am na jam ndax bu xaalis amul sax na jam am rek ndax jàmm mooy lépp mm-hmm. jàmm mooy indi ne da gars yi fi moom gars yi Baay Faal la ñu

dootul métti dootul métti jabar yi na ñëw baax